awu opposant bii di Ousmane Sonko dañoo dal di saisir euh, septembre euh, bi weesu cour de la CEDEAO ngir mu dal di dakkal teg loxo gi ñu ko teg loxo dugalaat ko ci liste électorale yi waaye tamit fexe ba dal di dakkal dogal bi nga xam ne nguuru Sénégal dogal na ko muy dal di seyal parti Pastef ñu amal ko niki altine yem ak juróom benn fan ci weeru novembre ci capitale bu Nigéria Abuja foofee nga xam ne fa la cour de justice CEDEAO am euh, daluwaay audience bi nag amal nañu ko ci lu ëpp benn waxtu ginnaaw ba juge Guébéry Guébé Ouattara dégloo avocat wu état bi ak bu Ousmane Sonko dal dinay xamle ne dàq na délibéré bi ba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre 2023 ci wàllu leaderu ex Pastef mooy Ousmane Sonko ak i ñoñam wala jege ñaaleem ñoom nag ñoom nag am nañu yaakaar ci bile verdict ndax bu fekkee ne moom la ñu jox dëgg mën naa doon lu am solo ci xëccoo bi nga xam ne mu ngi koy am moom ak régime bi rawatina nag lu ñeel candidature am ci présidentielle bu 25 février 2024. ki nga xam ne nag mooy njiitum réew mi ba mu jëlee bopp réew mi nag ba suñu joonu yàlla tey ci 2012 gis nañ ne nguur gi dafa dal di bañ a dëppoo ak verdict yi nga xamante ne CEDEAO sax nag amal na ko mën nañu cee lim. décision bi nga xamante ne jël na ko moom CEDEAO fanweeri fan ak benn ci weeru mars atub 2012 2022 di sàkku ci nguurub Sénégal mu dal di abrogé arrêté Ousmane Ngom bi nga xam ne nguurub Abdoulaye Wade moo ko fi dal di jëloon di aaye bépp manifestation ci diggu xolu Ndakaaru waaye tamit ba ñu sàkkoo ci ñoom ñu dal di dakkal système bi ñuy amalee parrainage nga xam ne cour bi mu ngi ko jëloon ci avril 2021 ginnaaw bi nga xamante ne parti union sociale libérale di parti avocat wu maître Abdoulaye Tine ñoom ñoo ko saisiroon su weesoo yooyu la dogal mën nañu tamit dikk ci dogal bi nga xam ne cour de justice bu CEDEAO jël na ko ci atum 2017 mu ñeel mbirum Khalifa Ababacar Sall ak état bu Sénégal. ndax nag daanoon na état bu Sénégal mu daal di jox ki nga xam ne mooy njiitu plateforme taxawu Sénégal lu toll ci fanweer ak juróomi million ci suñuy koppar waaye ba jamono ji ci dara.